bokk internet des Prod USA ginnaaw ba ñu leen nuyoo bu su nekk sa tur ak sa sant dañuy ñëw ak yéen seen rubrique DS Actu ginnaaw ba ñu annoncé ab génn àdduna moom njiitalu assemblée national ay mbokkam génn nañu démenti di wax ne li gars yi wax dara amu si lépp ay kàcc la njiital assemblée nationale di Moustapha Niasse ay mbokkam taxaw na tembe lu ñu koy waxal dara amu si mu ngi wér kémm te dara jotu ko jamono jii may wax ak yéen mi ngi fële sa France te dara taxu koo jóg lu dul liggéey ak réewam keneen ku nekkul si réew mi daan weer ak a weer tey weer na bopp moom Adamo di ñu xamal ne musul xam kan mooy papa mu doon ab diis ak méttit bi nga xamee ne dal na ko si àddunaam doomu aadama nee na ab nakar diis mettit foo ko xalaatee rek dund na ko ndax aadama mi ñu xam ne ne ba muy nekk xale dañoo ñàkkoon loolu si néegu ñax sax lañ daan fanaan moom ak yaayam waaye yemul foofule aadama def da beneen révélation bu nga xamee ne si boppam la jóge aadama du ñu xamal ne ba muy nekk tout tànk dafa tàggali ko ak sagom lu mu for lu mu musaan rek gise da koy jël rek yóbbu loolu moo nekk li nga xamee ne ab natt la bu ko suñu borom teg ba mu nekkee tout tànk loo muñ rek mu jeex loolu la ñu aadamoo xam ne gannaaw nakar ak diis bi nga xamee ne dund na ko si tout tànkam moom moom mi ñuy xamal ne jamono ji ak guddi yi yaayam air plus Touba la ko tabaxal waaye yemul foofule Adamo nee na am na ay biens si réew mi ay kër yi nga xam ne tabax na ko Almadi ak Kër Massar waaye yemul foofu ak yeneen i terrain yi nga xamee ne sax kenn laalu ko moom Adamo wax nañu lépp si li nga xamee ne dund na ko ba muy nekk xale yi takkoon seen i bagage ngir jël yoonu Tiwaawan ngir gàmm ba yeboon nañu ko tekki ndax Serigne Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidianes génn na gannaaw bi nga xamee ne waxtaan ay mbokkam ak ñenn si médecins yi moom Serigne Mbaye Sy Mansour di tollanti gàmmu gi ren du am gàmmu 2021 kon du am foofee ci Tiwaawoon loolu Serigne Mbaye Sy Mansour xamle gannaaw bi nga xamee ne waxtaan naag si ñenn si kilifa si Tiwaawoon te dara warula ko lu du ab coronavirus bi ndax moom Serigne si jàpp ne ne coronavirus baa ngi fi ba léegi te du jël benn responsabilité di lool askan wi keneen ku dul annulé ab waxam si réew mi di Tange Tandian ndax Tange Tandian génnati na Tange waxati na Tange defati na yeneen révélation moom Tange di ñu xamal ne diir bi ngeen toog te gisoo leen série boobu lee ñu gën ko xam si Pod et Marichou ngeen ko gisee lu ni mel dara warulu ko lu dul kii di Billy Billy moo ëmbal ak benn actrice actrice bi nga xam ne turam yi commencé par M Tange Tandian moo ko xamle Tange moo ñu xamale loolu ne Billy si boppam moo jëf lu ni mel Billy moomee di mbubboo ab taalibe Cheikh Ibrahima Fall di mbubboo Baye Fall na bàyyi lu muy def te xam ne du ab Baye Fall ndax Baye faal du tekki tubéy